أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci ala imran di jël tey aaye 64 65 66 67 68 mu nekk juróomi aaya yu ñu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy laa yas laa yasluxu xaalu lbashariya wala yastaqimu amraha illa ida axasat bi mabdaci lkalimatu lsawa wa hiya an tacbuda rabbaha waxdah la sharika lah wa an laa yacluwa bacduha ala bacd taxta ay qaanuunin aw shicaar li njëkk mooy aaya yi nekk sunu kanam li ñuy jàngal mooy benn xeet du mën a baax benn société seen mbir du mën a yéwén du mën a baax benn yoon lu dul xeet woowu wala société boobu bu ñuy jëlee rek benn baat yemale ko seen diggante mooy baat bi war a ñëw sunu kanam léegi muy sawaun baynana wa baynakum loolu la naan égalité ci lépp te mooy an taabudu rabbaha société ba mooy mu jaamu boroomam ñàkk a jaamu boroomam da leen di lor société li leen di baaxal rek mooy ñu jaamu seen boroom wiiri wiiri wër wër tatone du defar seen mbir jaamu yàlla rek an taabuda rabbaha wahda ñu jaamu seen boroom kese ñu bañ koo dendale bañ koo bokkaaleeg lenn waaye bokk na ca lay jëriñ société ba wa an laa yaaluwa baaduha ala baad ñenn ñi bañ a nekk ci kaw ñenn ñi ñëpp toll bépp société boo dem fekk du ñu jaamu yàlla rek dañuy warante dañuy warante da ngay fekk ñenn ñi di noggatu ñenn ñi mooy nu mu amee tey est-ce que xam ngeen ne tey ci Sénégal ñàkkum ndox mi am na ñu ko yëgul est-ce que xam ngeen loolu est-ce que am na ñoo xam ne seeni soxna wëriwuñu ndox seeni doom wëriwuñu ndox ñoom yëguñu ne sax am na ci dëkk bi fu ndox coupé yëguñu ko waaw gis nga waaye ñeneen ñi boo demee fekk yeneen miskin yi nga dégg ku naan la dégg naa benn femme di wax ci rajo bi naan séparation de corps laa def man ak sama borom kër xaw ma day saboté xaw ma dëgg la waaye seetaan naa dégg naa mu koy wax kon xam nga ne kooku bu fekkee ne loolu muy wax dëgg la kon société bi tooñ na ko lor na ko ndax li mu aajowoo ci wàllu jaamu yàllaam dem na ba mënatu koo def te xam ngeen ne ndox moom moom mooy lépp ndax yépp wa xalaqna min al maa'i kullu shay'in hayy lépp ci ndox la ko yàlla bindee lépp loo gis nag ndox moo tax muy dund saa ndox moom léegi doomu aadama yëpp dem àllaaxira kon xeet bi waruñoo kawante war lenn li taxta ayu qaanuunin aw shaar ci kanamu benn loi wala benn mandarga bu ñuy génne di ko laye lii mooy lii ñenn ñi tax di war ñenn ñi loolu moom mënul nekk waaw yàlla rek ñu yemale ko sunu biir mu nekk sunu boroom ñun ñëpp ñu daal di ànd jaamu yàlla ñaareel mooy xujjayatu taarix wa bayaanu lxaaja ilayhi is radda allahu taala ala ahli lkitab fi dacwaahum anna ibrahim kaana ala diinihim bi anna tawrat wal injil lam yanzila illa bacda wafatihi idan fa kayfa yakunu yahudiyan aw nasraniyan bokk na ci aaya yi ñuy jàng sunu kanam yàlla subhanahu wa taala dàq gi mu dàq ak leeral gi mu leeral ni waa ahlul kitaab yahudi ak nasaraan yi woote guñ doon wootewu di wane ne Ibrahima ci ñoom la bokk te xam ngeen ne loolu moo tax histoire lu am importance la waaye ñoom loolu ñu doon woote wu ci wàllu histoire yàlla daf ko weddi ba mu set ne Ibrahima bokkul ci ñoom Ibrahima du yahud Ibrahima du nasaraan lu ko waral mooy tawraat ak injil kañ lañ ko wàcce hmm? ndax xam ngeen tawraat ak injil kañ la wàcc xam ngeen ko tawraat ak injil kañ la ko yàlla wàcce après Ibrahim Ibrahima fekkewu ko kon bu ñu buggee laye ne tawreer ak an injil téere ibrahima loolu du dëgg kon ibrahima du yahud ibrahima du nasaraan ndax injil ak tawraat ñaari téere lañ ñu wàcc ginnaaw ba ibrahima faatoo yàlla ne ibrahima du yahud du nasaraan ñetteel mooy zamm man yujaadilu fi ma la ilma lahu bi wala sha'na lahu fihi yàlla day ŋàññ ci ay yi nekk sunu kanam kuy werante ci mbir te amoo ci xam-xam waaw ku dugg ci mbir di ci wax te peegoo mbir ma xamoo ko yàlla day ŋàññ loolu nit wala muy wax dara wala muy jëf dara na ci am xam-xam moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam balaa yàlla di ko def loo dara lu mu ko wax iqra jàngal nit warta wax lu mu xamul warta dugg lu mu xamul lépp loo xam ne xamoo ko ñu bëri lap nañ doomu ndey ñu bëri lap nañ xaaral ma dem xooli rek xaaral ma kii lap dootoo génnati ba yombal qiyaamati loolu ab jullit da koy moytandiku wax loo xamul dugg ci loo xamul werante ci loo xamul loo xamante ne aussi wala sha'na lahu bi amul la benn importance amul la benn njëriñ ab jullit day moytandiku loolu ñeenteel mooy alyahud alyahudiya ka nasaraniya lam takun diinu llahi taala wa innama huma bid'ataani la gayra yahud ak nasaraan li ñu war a leer ci suñu bopp mooy ñaar yooyu duñu diine ay bidaa la yu ñu sos christianisme ah ak judaïsme du diine léeg-léeg nga dégg benn jullit bu tarxiis tarxiis bu bu doy waar ne yàlla am na ñetti diine diine yahud diine nasaraan diine lislaam loolu ku ko wax rek war ngaa tuub ndax sosal nga yàlla yàlla benn diine la muy al islaam moom la Moussa woote woon moom la Isa woote woon moom la Ibrahima woote moom la yonent bépp bu yàlla mos a yónni islam nga woote mosoo woote ci yahudiya mosoo woote ci nasraniya kon sosal yàlla weesuwul nga ne yàlla am na ñetti diine te yàlla ne inna diin inda allah al islam yàlla benn diine la am kon yàlla subhanahu wa taala dafa weddi dajji mooy loolu ñu naan yahudiya muy christia judaïsme ak nasaraaniya muy christianisme yàlla daf ko weddi amul amul ci islam amul benn benn yoon bal bidaataani lu ñu sos la amul leneen juróomeel mooy almuminu baaduhum awliyaau baad jullit jullit ay mbokkam jullit ak jullit ñoo war a ànd jullit ak jullit ñoo war a féete jullit ak jullit ñoo war a far wa in tanaat diyaarahum doonte ne seeni dëkk yi dañoo sorante wa tabaadat aqtaaruhum seen gox yi continent yi sorante ñoom ñu loolu lépp amul importance foog ngeen xam ne frontières yi ñu ñu rëddal nation yi nu nu indil carte d'identité yi nu nu indil moo tax lislaam mënta taxaw ci àdduna bi xam ngeen loolu de sunu carte d'identité yi nu yor frontière yi nu dagg ah moo tax islam mënatula taxawaat ci kaw suuf ndax dañoo tàqale xeet wi ne bokku leen ñii ñooy waa Sénégal xoola Gambie fu mu nekk ah ci biir Sénégal la Gambie nekk kan ci ñun fi moo demee moo ñemee dem Gambie te amu kayit léegi ñun imagineel Gambie nekk ci biir Sénégal waa Gambie am nationalité beneen ñu ñu am beneen nationalité waa Gambie am frontière làmmiñ ci biir gémmiñ ñu ne làmmiñ bi bokkoo ci gémmiñ bi ah attention yéen bëñ yi bu ngeen laalee làmmiñ loolu loolu loolu xam nga ne du l'islam l'islam fii ba waa màkk fii ba màkk ba àddina bi jeex benn nation lañ wa anna haadihi ummatukum wala loolu du alxuraan ummatun waahid wa ana rabbukum yàlla nee na benn nation ngeen ummatun waahid baat bi sax yàlla daf ko indi umma ba pare nation boo yemoon foofu sax mais mu ne waahid mu ne maay seen borom jaamu leen ma amul différence amul frontière al ard ardullah suuf si suufu yàlla la al ibad ibadullah jaami jaamu yàlla mais gis nga nit ñu tàqaleen xam ngeen tàqalikoo bi lu muy waral dagg bi dagg bi ni lu muy tax mooy tubaab yi xam nañ ne dafa am loo xam ne dafa sans islam sans loolu islam du taxaw mooy xilaafa moom lañ bañ xilaafa taxawaat ci kaw suuf am na benn tomb ay tomb yu ñu yu borom xam-xam yi bind tuddee ko fukki tomb yoo xam ne day day détruire l'islam fukki tomb fukk la yaakaar naa sama xutba korité fii loolu laa defoon asara xutat li tadmir l islam daf ci bokk benn mooy dëkk jullit yëpp nañ ko dagg ay frontière bu ñu bokkati moo tax xool leen dëkk islam yi da ngay fikk dëkk bu ndaw ñu ko pëti ko dëkk yëpp dañ ko dagg dagg dagg ba pare ci biir dëkk jullit yooyu encore day am côté yoo xam dañ koy jagleel nasaraan yi pour bu ñu demee tuuti ba gisatuñ luñ xam rek ñu ne ñu ñu ñu armé nasaraan yi ne leen ngemb leen pour ngeen nangu fii comme ni ñu def Soudan loolu lañ def Sénégal ni Casamance loolu la dañuy sonal suñu bopp rek yàgg yàgg Casamance day am indépendance Soudan ñaata at lañ xeex ñaata at la fii genn wàll gi fekk wuñ ko bi ñuy judd dañoo fekk ñuy xeex ñun dañoo fekk ñuy xeex fu mu mujj mooy ñu dagg ko fii tamit lii tamit loolu la rek parce que pexe tubaab yi la mën ngaa dégg France coloniser Sénégal wala ki jiite réew li toog France France moo nu coloniser rebelle di xeex ak ñun ki jiite rebelle yi toog France France may ko lan ah droit d'asile mu toog foofu di ko protéger te ba pare ñoom ñu ne ñoom ñoom ñu la ñuy dimbali loolu xel nangu na ko loolu ban xel la ku làq sa noon sa noon la kuy dimbali sa noon sa noon la kon kay xam ngeen ne mbir mi ñun dañuy toog fii rek waaye adduna ba pare ñaareel bi mooy bépp dëkk islam na ngeen fexe dictateur jiite ko bu leen di dóor bu kenn wax wala bari ki démbali am Égypte même pas un mois ay nit di dem élection est-ce que foofu la tàmbale woon même scénario bi amoon Algérie la ñu yóbbu Égypte ay nit yoo xam dañoo dem élection ba gagné comme léegi bañ nañ ko xeex ñu ne léegi def leen parti nit ñi def ay parti ñu ne démocratie nit ñi jaar ci yoon woowu ñu wax mais ba léegi ban démocratie moo valable ci àdduna bi hmm ana ñu jàng tubaab ban démocratie moo valable ci àdduna bi xanaa ñaari démocratie la démocratie boo xam ne ku toog ku bu ku tudd jullit bokkoo ci ak démocratie boo xam ne ñi di jullit la ñooñu bu ñu waxee ñu jàppale leen jullit yi nga xam ne ñoom dañu ne wala même scénario Algérie lañ yóbbu lañ yóbbu lañ photocopier yóbbu ko Égypte mooy coup d'état jàpp ñi tëj jàpp ñi rey tas mbooloo yi confisquer alal ji jël leader yépp ñi ñu ci mën a tëj ñu tëj ñi ñu mën a rey ñu rey leen ñi mën a exiler ñu exiler leen loolu même scénario bi la ñu ngi yàlla taxaw waaye loolu yëpp dañu jàpp ne mën na ci ab jullit dara wala jàpp ne day freiner day freiner l'islam léeg-léeg sax lenn ci ñun ñu gàtt xel nga dégg yenn saa yi nga dajeke ne non mbokk yi vraiment dañoo échec ku wax loolu rek génn nga ci l'islam ba pare yow amoo xel jàngoo jàngoo lu waral loolu mooy liggéeyu yàlla mooy demee noonu liggéey yàlla yow mi liggéey pour samp xilaafa ci kaw suuf pour samp lislaam ci kaw suuf ñaari mbir dong moo nekk sa kanam bi moo nekk sa ndeyjoor bi moo nekk sa càmmoñ imma shahada wa imma nasr wa imma shahada échec amu ci yàlla waxul fenn échec la benn nga am ndam samp kàddu yàlla amoo ko nga dee dugg àjjana beneen bu gën a doy waar nag mooy yàlla day natt ba mu xool mbooloo mi ni ñu baree nii jàkka ji ni mu waree est ce que lacrymogène bu ñu ko sànnee ci jàkka ji dina am ñuy julli siwaat gée est ce que doo am ñu daw génn jàkka ji dem seen kër soo waxee ñu ne foofu kay pare naa fa waaw yàlla day xool est ce que ñan ñoo fii sax ba dee jot ñan ñoo fi taxaw xeex ko bu buñ fi dee dee fi ñan la loolu la yàlla wax ci quran bi kon nañu bàyyi xel jullit jullit mooy mbokkam waaye tey tubaab yi tàqale nañ ñu tàqale jullit yi tàqale jullit yi ba léeg-léeg sax nga nekk ci jàkk gis sa mbokk jullit sa xol bañ ko waaw ci biir jàkk musiba weesul loolu jël jullit yi utal leen i frontière utal leen i mbooloo utal leen i groupe takkal leen ay couleur la ilaha illallah ba jullit bu ci nekk moom yow li nga nekk rek li ngay woote wu dong yoon wi nga jàpp ne moo moom nga jaar dong dong dong mooy yoon wi dagan ñeneen ñëpp ay yéeféer lañ safara lañ jëm donc dégg ma koy dégg saa ma dégg ko non ixwaan yi li baax na ci ñoom quoi ñëpp safara lañ jëm dégg naa benn cheikh bu mag ci benn seen télé bi mooy set bi ma doon seetaan ma dégg mu naan wallahi nahnu la naatabiruhum sunniyin noonu laa déggee baat bi noonu laa ko këeroo mu giñ ci yàlla mu ne ñun jàpp ñu ne ñii ñoom ay sunnit lañ gis nga parce que pourquoi parce que moo ñoom bokkuñu mbooloo kese yée ngi côté bi moom mi ngi côté be farfarloo boobu jàpp ko ba mu wax ne ñee ñoom jàppul ne ñoom ay sunnit lañ buñ nee jullit du sunnit lan la bidaa maan nga loolu kese moo fi nekk buñ ne yow amoo tawhid lan nga mushrik nga buñ la ne doo jullit lan nga yéeféer nga loolu na ko jullit mooy tandiku almuminu baaduhum awliyaaw baad jullit lenn ci ñoom ñooy mbokki ñeneen ñi wa intana at diyaarahum lu kër yi sorante jullit jullit ay mbokkam wa tabaadat aqtaaruhum lu continent yi sorante jullit mooy mbokk jullit ay mbokkam laa lazi laa ilaha illa bu ñuy rey jullit yi nekk sow jullit yi nekk penk dañu war a xam yëg jóg bu ñuy rey jullit yi nekk penk jullit yi nekk xoolal tey Palestine seen problème lu tax mu yàgg mooy jullit ñi dañu jàpp ne du seen du seen problème walla moo tax mu yàgg jullit dañu jàpp ne du seen problème seen yoon nekk ci bañ lañ ko sax ba dañ ne Palestine léegi bu ñu nee Palestine rek yow Sénégal nga nekk loolu la ci dugal boo coogee bëgg a wax fii sax ñu ne xoolal ñi ñii dañoo soof ñee ñi ngi leen di rey fële kii lu ci yoonam islam amul loolu looloo tax frontières yi looloo tax tubaab yi tëral frontières yi pour di dumawaate dama leen di laaj fii ngeen di toog ma laaj leen laaju yàlla ban dëkk tey ci dëkku lislaam yi bu amul problème wax leen ma ko ci golfe bi ak li ko wër ban dëkk ci dëkku lislaam yi moo amul problème ban dëkk yépp am problème yépp ñi ngay reyante pexe tubaab bi la pexe yahudi la ak nasaraan yi kon li mooy nekk sunu darsa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء هاجتم فيما لكم به فيما لكم به علم فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين يقول المولى سنبرم مغي وخ mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ahlal kitab e yéen ñoñu téere al yahud wan nasara ñoom ñooy ahlul kitab li anna al yahud indahum tawrat wan nasara indahum al injil lu tax ñu nekk les gens de livre mooy ñii la yàlla jox tawraat ñii la yàlla jox injil ñi àndoon ak Muusa ñoom la yàlla jox tawraat ñi àndoon ak Isa ñoom la yàlla jox injil moo tax ñu nekk ahlul kitab ñoom la yàlla di woo ci aaya bi ne leen yaa ahlal kitab e yéen ñoñu téere ngalawaay taalaw ñëw leen ila kalimatin ci benn baat sawa im baynana bu yemale sunu diggante benn baat kese ñëw leen rek ci baat bi hiyal aadila baat boobu mooy baat bu maandu ban baat la mooy laa ilaha illa allah an laa naabuda illa allah waxda bun jaamul dul yàlla kese rek ñëw leen ci baat boobu laa sharika lahu bu ko kenn dendaaleeg lenn ñëw leen ci baat bi ndeysaan yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam benn baat boobu dong la doon woote qulu la ilaha illa allah tamlakuuna al arab wax leen la ilaha illa allah ngeen moom arab yëpp qulu la ilaha illa allah tuflihu wax leen la ilaha illa allah ngeen texe benn baat rek benn baat rek la sàkku ci ñoom muy la ilaha illa allah benn baat ñëw leen ñun ñëpp ñu tolloo ci baat bi sawa in baynana mu nekk suñu diggante waaw mu nekk buum bu nuy jokkale ñun ñëpp buum guy tax ñun ñëpp ñu ànd léegi nag bu yonent sallallahu alayhi wa sallam waxee yahud ak nasaraan ñëw leen ci benn baat muy baatu laa ilaha illallah baat boobu yonent doon woo yahud ak nasaraan ñun julli ñi tey mënuñ cee ànd te yonent doon woo yahud ak nasaraan yi pour ñu ñëw ñu ànd ñun julli ñi ñun ciy woo tey mënuñ cee ànd kon war nañ xoolaat suñu bopp allahu akbar en tout cas ñi yonent bi yónni yàlla yónni woon démb moom muy sahaaba yi ñoom day àndoon nañ ci baat bi ñoom ñaari kuréel dong la woon démb ñi àndoon ak yonent bi ak beneen groupe bi yàlla di leen woo ne leen ñëw leen ngeen ànd ci baat bi sawa im muy lu tollale baynana sunu diggante wa baynakum ak seen diggante waaw benn baat boobu kasa la ñu tollale ko sunu diggante ndeysaan mu nekk sunu diggante boom bopp buum googu wa huwa adlu nisfi baynana mu nekk maandute bu dox sunu diggante an la nacbud allaha wahdahu la shari an nacbud allaha wahdahu la sharika la ñu jaamu yàlla kese kese kese kenn ci ñun bañ a jàpp ñeneen ñi di leen def yàlla an la nacbuda illa allah bu nu jaamu lenn kenn ku dul yàlla wala nushrika bihi shay buñ ko dendale ak dara gis ngeen loolu mooy tawxid wala yattaxis bu mu jàpp baaduna leen ci ñun baadan ñeneen ñi arbaaban def leen ay yàlla waaw lii lii lii dafa dal jullit yi ci jullit yi da ngay dem jullit ah yi waxuma la sax da ngay dem wala nga yéen ñi da ngeen dégg da ngeen dégg diw yàlla la wala déggu leen loolu mosu leen dégg loolu wala ñun yàlla lañ wala diw yàlla kii mooy yàlla yàlla ngi ni borom jaam ñaangoog gaa yi jóg taxaw allahu akbar def baas bu ngand tànt bu ngand ñu ne léegi mu ñëw léegi mu ñëw léegi mu ñëw mu jékki-jékki ne tëll nga dégg gaa yi jóg taxaw ne borom jaam yaa ngoog yëpp jóg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun borom jaam yi borom jaam ñi baat boobu réy na de baat boobu de ku doon dem ci mbooloo ñu wax la ko war ngaa dëpp waroo yegg sax borom jaam ñi mooy yàlla léegi nag li yonente bi doon tere yahudi ak nasaraan yi moom la julli di def te lii yonente doon tere yahudi ak nasaraan da leen ko doon tere mu ne leen allah naabuda bu nu jaamu illa allah lu dul yàlla wala nushrika bihi shay bu nu bokkaale yàlla ak dara baatu shay yéen ñoo xam ngeen ko mooy lan ah shay mooy lan dara dara même bu dee ak buum buum buum gi ngay takk dangay gis ku feebar takk buum gu xonq buum gu weex buum buum gu ñuul fii buum googu sax amul droit takk ko nga gis ku yor lam ah lu amoo ci droit sey baatu sey mooy lan rien ci tubaab ci alaf ci tukulóor waaw mooy dara dara dos hay huune la ilaha illallah léegi yow nga jàpp nga de nga dem dendale yàlla ak leen yàlla na la sey dara mu ne wala yattaxis bu mu jàpp baaduna lenn ci ñun gis nga baadan ñu jàppe ñeneen ñi arbaaban ay yàlla baatu rabb sax la indi xam nga lu tax moo gën a for ilaa rabb muy jàngeen qul auzu bi rabbi nnaas qul auzu jàngeen alhamdulilahi rabb mooy ki moom rabbil alamin ki moom bindee fi ki moom àdduna bi yàlla mu ne bu kenn bu kenn jàpp ñe lenn ci ñun bu ñu jàpp ñeneen ñi def leen loolu mais ñun xoolal erreur boobu ñu pataxu bu ko yàlla di tere yahud ak nasaraan yonent bi woo yahud ak nasaraan yi bëgg leen indi ci tawxid ñun jullit yi ñu rëcc ci tawxid dem dugg ji ci loolu min dunillahi ñu bàyyi yàlla yàlla mooy rabb yàlla moo moom yàlla kese mooy borom bi amul keneen arbaaban al arbaab jamu rabb wa huwa al maaluuhu mooy ku ñu def yàlla al mutaa ku ñu topp bi gayri taatillah képp ku ñu topp ci lu dul topp yàlla rek kooku léegi moom nekk na taaxut nekk nag yàlla rawatina nag ku ñuy raamal ak di la sujootal ak di la rammoog di toroxlu ci yow billahi allazi la ilaha illa huwa yenn yi yàlla rek moo ko moom su ko doomu aadama defee rek bokkaale na summi sa mbax na ci kanamu nit nit nga summi sa mbax na ci kanamam ah farankulaayu lu raw loo xamante ne te boo duggoon ci jàkka doo def lool jàkka néegu kan la néegu yàlla nga nekk ci kanamu yàlla booy julli ci kanamu kan nga nekk maanaam nii nga mel ci kanamu nit ki meloo noonu ci kanamu yàlla loolu ban diina la kenn du toroxlu ci kanamu mbindeef kenn du suufeel boppam ci kanamu nit nit nit kese la yow kii ngay suufeelu ak di toroxlu ci kanamam yaa ngi moom a yem li ngay yëg lay yëg li ngay def lay def li lay métti moo koy métti li lay dal ci bànneex moo koy dal li lay dal ci naqar moo koy dal du yàlla moo tax bul ko def rab yàlla mu ne boo waxee lii yow muhammad nga def déclaration bi yahudi ak nasaraan yi dégg ko lank fa in tawallaw bu nu lankee wane ginnaaw aradu ani tawxid ñu dummóoyu tawxid fa in tawallaw ñu lank wane ginnaaw ah yow muhammad nag taxawal ak gaa yi nga àndal fa quulu ngeen def seen déclaration leeral ko ne ngeen wax ci kaw ñépp dégg leen ngeen ne leen ishhidu bi annana bi anna muslimun seede leen bu ngeen bañee moom yéen a ngi dem de waaye seede leen ne ñun moom ay jullit lañ muslimun gis ngeen baat bi baat bi rek la ñu yàlla tuddee amul beneen waaw amul beneen de baat bi dong mooy sun tur baat bi dong lan war a am amul beneen waroon am beneen tur bu dul bii baat bi huwa sammaakum min qabl yàlla nee na maa leen tuddee jullit waruñu am beneen tur bu dul bii bii rek bii rek mais tey ci réer gu nu réer sax tey boo yoroon sa benn micro ngay def micro trottoir nga di teg benn waaye nga ne ko asalaamaaleykum mu ne waaw nga ne ko yow lan nga muy tontu yow lan nga fi mu nekk ni jàkka ji bu ñu doon laaj ñu tàmbali ma yow lan nga nga gis ku nekk di ku nekk day wax kenn du leen a jullit la lan nga mu ne man murid laa yow lan nga yow man tijaan lan nga yow mu ne man xaadir laa yow lan nga yow man laayeen yow lan nga yow man ibaada yow lan nga yow man salaf la yow lan nga yow kenn kenn mu ne lan nga yow yow lan nga yow ba ñu egsi fii kenn du ne man jullit laa xool jullit boo ko ne lan nga rek jullit laa tout court jeex terminé foo bokk ci jullit yi ban mbooloo mbooloo jullit yi jeex na jeex na di loolu la yàlla wax di est ce que yonent bi fi bi mu waxee ñi bu ngeen bañee moom bu ngeen dem na ngeen xam ne ñu ñooy waa ansaar ñu ñooy waa Medina ak waa Màkk loolu la wax bi ànd naa muslimoon jullit muslim moo tax yonent yëpp baat bi lañu indi yonent yëpp benn baat bi lañu indi mooy muslim yaa ahlal kitaab e yéen ñooñu téere lima lu tax tuhaajuna ngeen di werante fii ibrahim ci ibrahim lu tax ngeen di werante bëgg a bokk ak moom foo gis ku bon day bëgg a bokk ak ku baax xam nga lu tax parce que ku baax kooku muy wootewu bëgg a bokk ak moom moom la la bëgg a naxee ñi ñi na Sénégal ñan la ñi lañ bëgg a bokkal ah ñu baax rek fi mu ne koo gis même triant yi nga xam ne boo xam ne bokkuñu fenn nga xam ne kenn xamu leen bu ñu defee seen yére ma dañuy jéem a nuru ñooñu ñu jéem soo dee foo bokk ma ne ma maag diw xamme woo ma semaine bi passé semaine bi passé dama am loolu loolu gars yi yoo xaw ma émission boobu di am ci rajo bi léegi par suba bi am Zik FM waaw semaine passée tës laa am tës ma toog sama kër rek benn xale bu jigéen sama portable sonné ma jël benn xale bu jigéen nee na Oustaz Seydou li ma ne ko ah mu wax turam wax benn sant mu ne man la diw sa kër laa jëm de mais fan nga dëkke ma ne ko ah wetu stade mu ne fan ma ne ko am na benn car horaire Fuuta bu nekk boor yooyu boo ñëwee foofu boo ma woowee ma génn jël si la mais tur bi mu wax nag man xam naa tur bi parce que amoon naa élève bu tudd pour man kooku la mooy ñëw kër ga ba toogaat 10 minutes portable bi sonné ma wàcc ñëw ci tali bi di xool kan moom kan la ba ma seen ay groupe jigéen di ñëw fële après maa ngi hésité daal xaw comme xaw ma kan la te gisuma ku ma xam ñu seen ma xam naa ñu ne ñu ne kee la kee la après ñu yëkkati ma loxo ma ma ni la yëkkati leen loxo ñoom ñëpp ñu daal di dem ñu bàyyi maag kenn gi waaw ma ne ko mbaa jàmm la mu ne waaw mu ne sa kër laa jàmm ah ma ñëw tegal ko siis mu toog ma ne ko noo tudd bëgguma wax tur bi nag ak sant bi ndax dafa bokk ci këru diine bu mag mu wax kër googu quoi ma ne ko ah lan nga fa mu ne ma diw mooy sama maam ah ma ne kon kii kon de ganu sëriñ laa am ma dem di réparer ventilateur yi teg siis bi kay pour ngelaw li upp ko après maa ngi moom maa ngi moom ma ne ko ah yow foo ma xamee mu ne dafa am ku may wër mais dañ maa jox sa numéro ne bu ma la gisee dinaa gis kooku dañ koy wër nu mu tudd mu ne Fatima am naa doomu tudd Fatima ma ne ko foo ko xamee mu ne dañ doon jàngandoo école wax benn école ma ne ko ah man da sama doom bi sama taaw bi noonu la tudd mais jàngul école boobu de mais peut-être mun nañ ko xam ma dem yee kooku da doon nelaw ma yee ko ne ko am nañ fi benn gante def nee na ku tudd Fatima lay seet mu ñëw nuyu ko bon mu ne mu ne du kii léegi ma ne ko foo jóge mu wax ma dëkk boobu mu jógee ma ne ko foofu nga jóge nii direct mu ne waaw ma ne ko ah xanaa waxoo woon ñooñu yow yaa ngi ñëw ci ñoom mu ne ah kay ma ne ko ah léegi xanaa yoro seen numéro mu ne ma déedéet xab fan la mu ne ma géejawaay kese ah ñooñu nu ñu sant xaw ma ko tur bi rek laa xam Fatima am na mbokk yi nekk fi benn mbokk bu nekkoon fi léegi-léegi mooy jaari comme xam naa kooku këram am nay élève arabe yu mu wax ne fi mu doon jàngee Al Azhar la ma wax ma ma dem ma ànd ak moom foofu ñooñu ne xamuñu ko moo woo téléphone sama xarit oustaz yëpp ñu ne xamuñu ma ne ko léegi luy pexe yor nga paas ñibbi mu ne ma déedéet 1500 laa yoroon bi may jógee dëkk boobu bugguma wax turu dëkk bi ma ne ko léegi nag ma indi ko sama kër ma ne ko léegi xam nga nu ñuy def ah ma dem ci bitig bi jël 2000 ma yóbbu la ba buntu pikin nga jël oto nga ñibbi dinaa wax dinaa wax chauffeur bi na la yóbbu ba seen dëkk loo guddee guddee mu wàcce la ci dëkk bi bu la wàccee ci dëkk bi di nga mën ñibbi seen kër mu ne ma waaw. dem ci bitig bi jël 2000 di ñëw boo ci benn borom kii defar fi vélo yi de kooku daan may seen dëkk jóg ah oustaz na nga def waay man ko maa ngi rek mu ne ah foo jëm ni man ko ah kii de sama gan ganu sëriñ la mu ngi jógee dëkku sàngam mu ne ma lan doon dëkk mu ne kii dëkk ginnaaw raay waaye yow ma ne ko ah rek ndaw si ne ko ah yow danga maa xàmmee man danga maa jaawale la man de ko ah mu ne ko waaye bu ma fontoo nga naan la yow nga dëkk ginnaaw raay nga naan dëkk sàngam nga dëkk ma ne ah moom nee na ma eh, eh, diw moom mooy papaam eh, kii ne nangam la sant nangam la tudd mu ne mu wooy ah léegi ma ne ma ne ko ma ne xale bu jigéen bi taxawal léegi ma xëcc waa ji nee quoi ma ne ko waxal dëgg da nga xam kii wala mu ne ma us waay kii kii bandi la xam naa ko ma ne ko fu mu dëkk mu ne ma ginnaaw raay man ko leer na la kii ah kii nu mu waxee nii xam na waa kër googu de mu ne ma waaye kii daal xamul kenn da lay tuur lëndam kii saay-saay la ah ma woo xale bi di ko commencé waar quoi ne ko ragalal yàlla bàyyil fen ñu foo dëkk mu ne man dëkk boobu laa dëkk di di dëgër di di dëgëral ah léegi nag man ñemeetuma ci ma daal di koy jox 200 ne ko léegi si demal nga ñibbi comme ginnaaw raay la ginnaaw raay moom 200 mën na faa def gis nga xoolal dafa dem. dafa dem gis na ma ko bu ñu doon dëgg bu ñu doon dëgg moo xam ne day am problème ñibbi.
waaw nee naa ko boo demee bu fekkee am nga problème mënatoo ñibbi dëkk boobu nga ngoo def parce que xam na ni ñu ko kii.
boo demee am nga problème mënatoo dë dë ñibbi dëkk boobu ñëwal fii soo ñëwee man dinaa def tout pour nga ñibbi seen kër gisaatuma ko de moo tax après nag ma ñëw ne waa ji waa da nga xam kii mu ne mu waay kii maa ko yar nga naan ma ne kii dëkk suñu koñ ma ne ko ah mu ne waay maag frère am ñooy ànd bàyyil ma ma ñibbi sax dinaa ko boole ah yow de wàllu nga ma kon ban tey te boo gisee ni mu ma doon incarné fi mu dëkk man kay fi mu nekk man nekkoon naa taalibe ba pare ba taala ko ventilateur teg ko si kaw jënd ndoxu glace indi lu nekk ndax di ko màggal ndax ñooñu waaye gis nga rek yaa ahlal kitaabi e yéen ñooñu téere lu tax lima lu tax tuhaajuna ngeen di werante fi ibrahim dafa bëri ku jóg rek dina man ibrahima mooy sama maam ibrahima ibrahima lu tax ibrahima ku baax la parce que ibrahima yàlla moo ko tàgg ne inna ibrahima kaana umma ibrahima rek benn nation la ci tawxid moo tax ku jóg bu ko askanoo nasaraan yi buñ jógee yahudi buñ jógee jullit ñi buñ jógee ku jóg rek askanoo ko parce que dafa baax dafa nekkoon ci lu yàlla wax moo tax gis nga yàlla ne leen wa ma unzilati tawratu wal injilu illa min baadihi wàccewuñu tawraat wa ma unzilati wàcce wuñu at tawraat tawraat wal injil ak injil illa lu dul min baadihi ginnaawam afala taqiluna tax du ngeen xelu tawraat ak injil ci jamono ibrahima la ñëw wala après ibrahim ah kon ñoom naka la ñuy jëlal téere boobu ñu ne téere ibrahima la wala ñu bëgg a askanoo ibrahima te ibrahima mag téere yooyu moo mag génération yooyu kon ibrahima alayhi salaam ñëw na ba dem kenn xamul ñaata at ba Moussa ñëw tawraat di doog a ñëw I- Isa ñëw injil di doog a ñëw buñ bëggee jël nag injil ak tawraat laxas ko dajale ko askane la ko ibrahim yàlla ne leen afala taqilun ndax du ngeen am xel ah gis ngeen moo taxit di wootewu ku baax di dëkk déema dëkk ku baax kooku te baaxoo amu benn njëriñ te ñun loolu la ñuy def fii bañ a jaamu yàlla di ti démb wax naa ko jumaa ji ma doon jiite mais dañ ne Sénégal dëkk bu baax la jàmm rek moo fi am fenn ndax nit ñu baax ñu fi tëdd bi ma ne nit ñu baax ñi nañ jóg indi ndox mi wër ngeen ba mokk de ñu la ñooñu mënuñu indi sa terne yi indi ndox mi xam nga yooyu ay ay idée arrêté la saboté wuñ de maa dañu bëgg nit ñi xam ne ku baax su amee ci dëkk boppam la baaxal su deewee jeex na yoonam nekkatul ci ñi nekk ginnaawam Irak a ngi ne ñi fa tëdd ñoo ñoo gën a baax ñi dëkk Sénégal ñi tëdd Sénégal fap wala gëmu leen loolu gëmu leen loolu wala kenn waxul ña ña Seydina Ali fan lañ ko suul ñemewu la wax.
Seydina Ali fan lañ ko suul du Irak Hussein fan lañ ko suul ah xoolal musiba bi am foofu guddeeg bëccëg par minute du question ay nit yu baax ñoo tëdd fii nit ku baax bu tëddee fii te waa dëkk bi baaxuñu amul njëriñ waa dëkk bi nañ jéem a baax nañ jéem a jàng nañ jéem a jaamu yàlla nañ jéem a liggéey loolu la mbaax bi di leen jëriñ waaye ah ñun day sunu maam dafa baaxoon ba pare te yéen baaxu leen amul benn njëriñ yàlla day wax ci Qur'an nit ñi bu ñu baaxee bàyyi su baaxee ak soxnaam yowmal qiyaam ëllëg doom yi topp leen ci mbaax moomu dinaa yéegal doom yi ba ñu egg ci darajay bàyyi donte ne amuñu degré boobu naa leen yéegal lan moo tax parce que dañoo topp ci yoon bi allazina amanu wattabaatuhum zurriyatum bi iman lu yàlla wax alxaqna bihim zurriyatahum danaa yéegal doom yi ba ñu fekk papa yi lu tax parce que doom yi dañoo juddu jaar fi bàyyi jaar waaye bu fekkente ne bàyyi dañoo baax doom yi nekk ay rappeur ak ay simbakat ak ay bubu kolo ak ay mbër yàlla tàqale leen parce que bokkutuñu yoon bokkutuñu yoon di aw mu ngoog kon nañu bàyyi xel bu baax a baax li yàlla dina wax yàlla nañu afala taqilun tax du ngeen am xel ha antum yéen ñii tey haa ula i ñii haa jajtum yéen a ngi werante fii ma lakum bihi ilmun ci loo xam ne amu leen ci benn xam-xam ci mbiru ibrahima ak leneen falimatu haajuuna lu tax ngeen di werante fii ma laysa lakum bihi ilmu ci loo xam ne amoo ci xam-xam loolu loo ji dégg saa yoo wax ci mbir mooy na fekk nga pekku am ci xam-xam mais tey Sénégal li ëpp ci ñun li ñuy wax xamuñ ci dara surtout nag diine surtout diine waaw da ngay gis ku jàpp jaam yàlla yëpp di leen yóbbu safara jaam yi topp ko mu yeew leen ñoom ñëpp kenn du rëcc ni ñu yeewee nag yi seen tànk yeeg seen béjjën yi noonu la waa ji yeewee nit ñi seen bopp yeeg seen tànk yi waaw non parce que xamuñ nit du werante nit du wax ci lu mu amul xam-xam lépp looy wax na fekk nga pekk nga xam ko suñu la ci laajee nga tontu. suñ la laajee xamoo xamoo nel xawma imam malik yàlla na ko yàlla yërëm dañ ko laaj genn wàllu laaj yu bëri mun a xawma benn waay ne ko i en tant que malik ñu lay laaj nga ni xamoo mu ne bu ngeen demee ngeen ne xawma man mii maa ko xawma lan la yonent bi wax nisful ilmi laa adri genn wàll xam-xam mooy xawma waaye ñun fii da ngay gis ku ne salma chita laajal lu la neex li kulli sualin jawaab soo ko ne suuf si ñaata kilo la mu wax ko géej ñaata la ñaata paan mu wax ko xobu garab yi mu wax ko ah nga gis ba ci télé sax.
ah ñuy laaj ay question.
réponse buñ Musa buñ Musa ko man di xaw déedéet ma.
xaw ma ko bañ émission bi bañ tàmbalee ba tey question yi ñu leen laaj yëpp yëpp lañ cay xaw ma ko dafa loolu diine la ah, nit ko xamul waxal xaw ma yàlla ne subhanahu wa taala falima lu tax tuhaajjuna ngeen di werante fi ma laysa lakum bihi ilmun ci loo xam ne amu leen ci xam-xam xanaa xamu leen ne wallahu yàlla yaalamu moo xam wa antum yéen laa taalamuna xamu leen yàlla xam de kenn xamul xam ngeen lu tax doomu aadama xamul wa ma utitum min al ilmi illa qalil tuuti lañ leen jox xam-xam mu ne maakaane nekkul woon ibrahimu ibrahim yahudiyan yahud juif wala nasraniyan du chrétien walakin waaye kaana nekkoon na xanifan ku jeng ci lépp lu bon musliman jub ci lislaam nekk jullit yébbulu ibrahima du woon yahud du woon nasaraan walakin waaye kaana nekkoon na moom ibrahim xanifan ku jeng ci lépp lu bon musliman jébbalul yàlla nekk jullit kon ibrahima lan la woon aaya bi moo leen ne woon ibrahima du woon yahud du nasaraan lan la jullit lan la yonante waxoon sa gaa yi fee sànq ishudu bi ànd na muslimoon kon yonante ak ibrahima luñ bokk bokk diine benn diine bi la bi ànd na muslimoon mu ne wa ma kaana musta nekk moom ibrahim min al mushrikin ci bokkaalekat yi gis nga inna awwala naas dama leen ne ñi gën a yey inna awla naas ñi gën a yey bi ibrahima ci ibrahima su fekkee da ngeen di tiitaroo ku nekk di ko xëccoo naan maa ngi moom a bokk inna awla naas bi ibrahima ñi gën a yey ci ibrahim lalladina tabauhu mooy ñi ko toppoon wa haza nabi ak yonent bii mooy ban yonent ah kon léegi xam nañ ibrahima fan la bokk xam nañu ñan ñooy mbokk ibrahima ndax yàlla moo ko wax waaye ñaari baata ngi fii ginnaaw ba yàlla ne inna awla naas bi ibrahim lan la wax ah lalazina lalazina ñi nga xam ne ñoo ko topp kon soo bëggee soo bëggee bokk ku baax nooy def koy topp waaye moom mu dem muy dox fële yow nga toog fële ba pare ne man man waaw yow foo boo nga ne waaw ma ne ah te yow toppoo ko saa yoo bëggee nekk ku baax da nga koy topp boo bëggee ànd ak yonent bi da nga koy topp yàlla ba mu ne ñi gën a yey ci Ibrahima mooy ñi gëmoon yàlla ñi ko topp waaye yemu ci mu ne wa haza nabi ak yonent bi moo tax yonent bi topp Ibrahim Ibrahim yàlla topp loo yonent bi Ibrahim laqad kaana lakum aaya bi laqad kaana lakum uswatun hasana fi Ibrahim wallazina maaw yàlla nee na Ibrahima ak ñi ko gëmoon roy na doy na leen royukaay roy leen ñooñu yéen yéen jullit ñi roy leen yow yow yonent bi royal ñooñu yàlla dafa royloo yonent bi Ibrahim looloo tax aaya bi ñëw ne ñi gën a yey ci Ibrahim mooy ñi ko toppoon wa hasan nabi ak yonent bi waaye ñële ñi nga xam ne topp ñu ko ba pare bëgg na ñoom ñoom ñoom moomu bokk ne Ibrahima yahud loolu la nasaraan kon loolu na leer ci ñoom wa hasan nabi ak yonent bi wallazina amanu ak ñi gëm yàlla ñun ñi fekkee nangu nañ lool wallahu yàlla subhanahu wa taala waliyul muminin mooy kan mutawalli amrahum wa nasirum yàlla mooy sunu péete allahu waliyul muminin borom xam-xam bi nee na bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen aaya yi fu muy jeexee su yàlla ne wallahu waliyul muminin jullit bi jàpp ne man man aw aw farumaak ku am doole man samay mbir kenn féete woowu ko man dama yaafus dama nooy dama dama te yàlla ne la wallahu waliyul muminin man yàlla man man nga aliyeel man yàlla nga féeteel loo néew doole néew doole kon war ngaa xam ne yow féetewoo ku ndaw jullit al mumin nag la yàlla wax waxul muslim ndax mumin moo ëpp doole muslim moo tax war ngaa egg baatu mu'min ba nga xam ne lu mën a xew rek wallahu waliyul mu'minin yàlla mooy moo péete ak way gëm yàlla yi kon mbokk jullit yi lii mooy darsa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh